frère maa ngi lay bu baax. ça va ñu ngi lay fay bu baax. yaa ngi si jàmm. ça va alhamdulilah. fii ko booy ñaa. waa gis nga. Capa bi. mu war a jàkkaarloo ak kii di Modou Lo nan di wàcce combat bi. waaw comme niñ ko doon waajee rek. ñun moom combat yëpp benn la si ñun. amul combat bu ñuy waajee nii wala bu ñuy waajee ne combat yëpp nuñ koy waajee chaque jour noonu lañ koy waaje waaw. dégg naa ñu ne Pikine boo ñàkk sa lañ dese ndax seen mbër yëpp daan nañ leen. waa instant bi mooy suñu sànni tàccu kay mooy suñu sànni tàccu ñun ñun ñun ñun ñun Pikine moo ñu ñor duñu wax Boy Niang mais Pikine moo ñu ñor ñun Pikine équipe équipe Pikine AS Pikine wala mbër yi muy Ama Baldé muy Eumeu Sène muy ay ñoom soq nouvelle génération bi ay ñoom prince ñoom ñëpp pikin lañ bokk ñun ñëpp ñoo fi bokkandoo yem ndax ñun ñëpp sunu sunu sunu papa yi buñ fi amul kër. am nañ fi tuuti foncier kon kenn mënuñu génnee si Pikine bi waaw. macha allah dégg na wax kii di Boña ak bu Cheikh Diop vidéo bi mu def maa ngi dégg ñu naan Boña waa Pikine ñenn ñi dañ ko xaw a mere yow mi nga xamante di ñu ci mën a leeralal. ah ay Boucher Ketchup yooyu ñoom du ñu ay mbër ñoom du ñu ay mbër yow Boucher Ketchup doo mbër yow ndax yow fu ne ngay taxawaalu di wax rek mbër bu aaya nga dem si moom lijjanti fa soo paree génn wax pour lan. kon Pikine moo mere wuñu Boy Niang. non mais bu mais fekkoon dañ ko mere barki démb bi ñuy génn di dem face to face gis nga dëkk bi nu mel. Mm-hmm. ah mais tamit kon kon gars yi nañu bàyyi li ñuy wax ñun ñëpp ñëw bokk benn Pikine bi ñu dégg nañ Boy Niang lu wax bu baax. barki démb ñëpp dégg nañ ko nee na Pikine laa jógee nii te fa laay delluwaat su ma paree te bu mu paree fii la dellusiwaat kon cela veut dire foofu noonu amul xiiroo ngaayoo suq yi nañu bàyyi di wax li nga xamante ni leeru leen. wala di dégg ay rumeur yoo xamante nii xam nga ñoom xamuñu si dara raxi tamit ku soo faree fenn bu la neexee nga far fa ku nekk am nga plein droit far fu la neex ku la neex faralal Modou Lo bu la neexee faralal Ama bu la neexee faralal Balla ñun Boy Niang la ñu am ñun Boy Niang am te moom la ñuy topp fii ba suba waaw. soo doon digal Boy Niang ci làmb ji nga xamante ni dafa war a jàkkaarloo ak Modou la nga koy wax. non man wax dëgg fa yàlla moom cappaacoli moom aw ma dara lu ma koy ko kenn ko conseillé moom rek xam lu ko war a lu mu war a conseillé boppam. dégg naa roi bi neexul la yëkkate waa Pikine dañ ko bëgg a indi. waaw mais parce que tamit mooy comme lu ñoom li ñu wax barki démb si signature bi rek am Modou na moom daa ñëw ba bu Pikine teg fa 16 am. loolu la wax. boo ñaan nag ko doññet non du ma non instant bii nii ñun ñun bu ñu demee le premier janvier dinañ xam ne ñun ko fa waaw roi ko bëgg a indi piqué. mais tamit il est temps quoi dafa jotaat dafa jotaat indi na indi nañ ko fi du benn yoon du ñaari yoon mais dañ ko fi bëgg indi waat parce que ñun suñu suñu suñu nouvelle génération gii nii ñun ñoom lañ am. ñoom ñoo fi des te ñoo fiy des. waaw di ci di ko waajee di ci dugg bisimilah rahmaani rahim di ci génne alhamdulilah rabil alamin di ko waajale comme bis yi rek bis moom mënul passé lu dul bis te Boy Niang amul benn bis bu ko war a jaaxal. ndax ku jóge si Balla Gaye amul benn bis mu la war a jaaxal ndax Balla Gaye mooy borom bis yi. lu tax ngeen teg foofu seen tànk ne daal dañoo du du Balla rek lañ teg ndax Boy Niang bëriwul ak Balla rek mbër yëpp la bëreel. champion yi nekk Pikine yëpp ak ñeneen ak feneen ñëpp Boy Niang bëree naa. mais li ngeen insisté Balla dafa bari. non xam nga rek ndax mooy mooy mooy mooy ca mooy daj daj bi. te gars yi loolu ngeen wax yéen ngeen ne bala mooy daj dëpp yi. léegi ki ko daan moom lan la kon Mm-hmm. waaw loolu laay xam bëgg a xam. Mm-hmm. te na ngeen Balla mooy daj dëpp bi te ku daan daj dëpp bi beneen mbër deseetu la. Mm-hmm. waaw soow lii xaw na bari tamit tuuti ci côté Ama Baldé ak kii di booy ñaa ndax nee nañ Boy Niang dafa ñoo ñëw taxaw Ama Baldé. nan bàyyi loolu foofu coow amu fa. Boy Niang ak Ama ay doomu ndey lañ dañu bokk tëdd fanaan lal ba taay nañ nit ñi nañ nañ lijjanti seen problème te bàyyi problème booy Niang ak Ama. mais dañoo dama la ne loolu même buñ ko bokkee moom ñoom ñaar. musuñu réeroo si dara ay doomu nday lañ li booy ñaa di wax rek ama day bëre jox ma wala ma bëre jox amuñu réeroo nañ bàyyi pikin di wax ci pikin pikin ñun ñëpp benn bopp lañ pikin mbër bi fi gën a tuuti bu jegee pikin jóg kon nga xam ne ñun pikin ñun ñëpp solidarité la ñuy def et benn lañ kenn mënuñoo ñoo xaajale ñiy wax nag biir pikin ñooñu ñu pikin ñooñu nan dem seen fu ñu war a wax ñu wax fa. dafa rax. waaye rax yi ñoo ñoo ñoo dugg pikin ba koo jaxase te mënuñu loolu tuuti nañ ci. fii sunu mag ñu baax ñi dañ koo liggéey ba toog sunu mag yu baax yi fi newoon loolu kenn benn nit di ñëw di ko yàq pikin benn bopp lañ nañ bàyyi Pikine danoo réeroo loolu amul ku leen wax loolu loolu amul waaw booy ñaan ak moom li ñu koy ñaanal ci bis bi mooy sunu borom sàmm ko ba pare ndax yàlla moo mën a sàmm te kum sàmm nga sàmm ñu ngi koy ñaanal ci daraja yonent yàlla Muhammad ci barke Cheikh na Cheikh saat bi mu yaakaar sunu borom may ko ndam lu set wécc bu àdduna bi yëpp di di di waxtaane. ndax dégg naa boo ñàkk sa ngeen dese mbër yëpp daan nañ leen. boo bàyyi leen loolu. suñu borom mooy maye risku maa inda Allaahi yàlla rek mooy maye. nga Eumeu Sène nañ ko. loolu day mel ne kon dañoo jël mbir mi yëpp jox ko Boy Niang. xam nga ñun lu ñuy def. yàlla mooy kiy maye te mooy aji maye ji. te ñun kooku la ñuy ñaan te kattanu suñu borom yàlla dina ñu may. waaw wax boobu day nekk wax boo xam ne jërul di wax. ay sànni tàccu. Kamal la nga def. maa ngi sant yàlla. Kamal nooy préparé euh, làmb ji nga xam ne Boy Niang war na kaa am ak Modou Lo. waaw am naa yooyu ndax Pikine la dëkk Pikine la dëkk doom Pikine la doom Pikine la te papam déggul xam nañ ko bu baax moo xam loolu moo tax. waaw lan ngay wax Boy Niang tey soo ko doon wax. Hmm? Boy Niang soo ko doon wax lan koy wax ci làmb ji. Boy Niang waaw. dam koy ñaanal. dam koy ñaanal ba bu bind ko ay xaatimu alxuraan jox ko ko. Ah, dañ koy bindal ay xaatim. waaw xaatimu alxuraan waaw. xam ne day gagné. ah. yoo xam ne day gagné. waaw pour nga xam ne moom bëre bu bëree mu gagné ay xaatim alxuraan laa ko bindal jox ko. waaw. <laughs> soo ko doon bindal lan nga koy bindal. ah. bal xaatim nga koy bindal. xaatim alxuraan. xaatim alxuraan yu diis laa koy defaral. mu ci mel ne ban. ah mu ci mel nan. <laughs> loo xam ne yaramam doo ko tey te mu la tey nga ñëw <laughs> waaw. kon yow daal booy ñaara daal. waaw loolu la loolu laa bëgg mu am. waaw. su ma ko bindee xaatimu alxuraan ma jox ko. Mhm. wala ma gis ay mbokk ma jox na ko jox na kamaan moo la ko jox. Mhm. waaw.